asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak euh, valeur yi ñu bokk tey nag ñu bëggoon a euh, sànni ay kàddu yu gàtt rekk ci euh, mbirum suñu mbokk moomu ñuy wax Boubacar Sèye te nga xam ni yoon teg na ko loxo ci ay wax yoo xam ni nee ñu da koo wax ci li tubaab di wax diffusion de fausses nouvelles wala boog de fausses informations mooy li mu wax daal amul cëslaay bala may tàmbali ci suñu waxtaan damay euh, jéem laaxante biir ak ki nga xam ni kii moom moo jiite réew mi li ma koy laaye biir mooy wax ko ne ko moom mu wax ak ñi nga xam ni moo leen yilif ci wàllu yoon ak ci wàllu police gendarmerie ak yu mel ndax moom ku mu ci sant danga def ba def sax xëy na lu ëpp lam la santoon ndax bëgg lu ko neex kon lii di xew ci réew mi war na ci wax ndax mi ngi bëgg ëpp nag wolof nee na géwél bu reppee ci xare lu mu jiin xeeb ma yokk ca ni buurit bu reppee ci xare lu ñu ko jiin mu xeeb ñi nga xam ni ñoom ñooy def jëfin yooyu tàmbalee ci procureur ba ci policier bi gën a néew garaat wër nañuy poser ay acte wër ay jëf ak i wax yoo xam ni yii moom da koy amal njëriñ ndax nag moom lépp ci boppam lay teeriwaat lu policier def dana ne li Macky def lu procureur def danañ ne li Macky lu gouverneur def kazalika parce que moom lépp ci boppam lay teer ndax moom lañu ñu dénk te bu ne woon du am du am su fekkee nag dangaa dëkke nag ku wax lu la arrangé wul nga jàpp ko tëj ko ku wax lu la arrangé lu mel na leekee waxoon waaye sa mbokk a jege na la nga bàyyi muy dem loolu waxoon naa ko fi Sénégal lu nekk la am ba mu des justice ndax façon bi kenn mënu ko tudde justice justice màndu la laaj ngor la laaj doxal yoon mooy tax am réew dox bu ko defee foofu lañuy yam ci kàddu yooyu ci moom mu am nag rapport kon ak li ñuy wax ndax waa ji ñuy wax Boubacar Seye dafa wax ci ay kaet benn télévision ni Union européenne mbooloo la moo xam ni mi moo dajale réewi Europe yu bare bare dañoo joxoon Afrique Sénégal ci la bokk alal ju bare bare bare joo xam ne téeméeri téeméeri milliards la ngir ñu taxaw ci ndool waaye taxaw ci tukki bi nga xam ne tukki xale yaa ngi koy tukki jaar ci désert bi ak ci ndox mi mu ne loola xaalis la ay milliards la loola lañ ko jëlee dégg naa ñu ne aéroport lañ ko kar mu wàcc ñu ne ko noos yóbbu di ko entendre di ko entendre def retour de parquet ba mujj nee na yóbbu ko ca kaso ba loolu nag moom laa doon wax njaal beenu wax kon su fekkee ne ñoom dañu ko teg ci arbitraire jaay doole parce que dafa wax rek ñu jàpp yóbbu loolu Macky Sall mi ngi dóor loxoom ci ëkk boo xam ne bii nàcc rek lay mujjee waaye man nag moom moo ma yitteel ci wax ji moom bu Boubacar Seye man an angle bi ma koy analyser beneen angle la en tout équité nag ndax man su ma sañoon melentaan sax duñ ko dugal ci bërëb di ko tëj waxuma laak doomu aadama waxuma laak nag nit koo xam ni kii mi ngi xeexal ay doomu aadama néew na bari na waaye moom li ma koy reprocher man mooy boo demee ba nga xam ni dangay génnee ay wax seq kook nguur goo xam ni gii dafa ne siiw ku mu jàpp ba tëj la yow waroo maye luñ lay tëje waruloo maye luñ lay tëje ay programme yu daanu ci ndox catastrophe ay dizaine lañ ciy wàññi depuis l'indépendance ay dizaine de programme ay dizaine ay centaine wala ay millier de milliards dugg nañ ci ay programme yoo xam ni kenn xamul fu mu mujj te nag li ci ëpp doole ci daanaka fanweeri at yi passé ci la amee ci fanweeri at yi passé wala boog nga ne vingt ans yii passé lu ci xew lu ne xew na ci lu ne bërki dem rek laa ciy waxtaan ak sama benn jarbaat mu naan ma ana si njëli Wade ma ne ko kooku réeri na ak suñuy milliards ana Karim Wade mi ñuy jiñoon ay milliards ba tey waxatuñu ci waxu milliards yi leneen la ñuy wax ak leneen ak leneen ak yeneen ak yu tuuti yoo xam ne ñi ngi fi ak yu mag a ngi fi kon loolu moom moo fi nekk depuis vingt ans depuis trente ans ñu koy dund moom nag muy intellectuel bu mag di personnalité bu mag boo xamee ne da ngay dem bay wax ci plateau télévision kayit ya nga xam ni ñooy ay firnde warut doon ay euh, on a dit nga déedéet kenn du ko blanchir kenn du ko blanchir kenn mënta wax lu koy setal moom mu kàllaf la responsable la boroom xam-xam la autorité la boo xam ni bii yaakaar naa ni li mu représenté ñépp xam nañ ko kooku këyit yi nga xam ni ñoo koy setal ci biir armoire am la war a nekk wala nga ne mi ngi ci biir tiroir nga xam ni tey bu ñu ko nee procureur a ngi day génne këyit ya dikk ne ko ko bëcc muy ay kayit yu authentique parce que ginnaaw bi sax dégg naa gaa ñi ñooy authenticité kayit ya moom moo des maanaam kayit ya sax amul signature amul cachet kon qui veut tuer son chien l'accuse de rage ñooñu kon bu fekkee ne ñoom dañ la doon fexeel jàppal ne kon jàpp nañu la ci poñ bu ko defee nag bu fekkee ne dañ ko acharné wu ci moom ak yàgg nañ fee acharné wu loolu moom dana mës a jeex incha allah su fekkee ne dañ ko dëggal saraxet ndëgg sarax gi moom am na ci responsabilité parce que ay këyit nga yor yu wér yu wóor mbir mi moom lu am la lu réel la ay milliards yu dugg ci bërëb mais boo demee ba dañ ci prononcé wu da ngay am ay firnde nag yoo xam ni day nekk ci sa loxo nga xam ni ku la woo nga ne ko mi ngi nii lii kenn du ko werante waaye xam nga kuy tëru kuy teggee ci ay mais bu fekkee ne nit ki dafa xàcc bi yar aw yat bëgg laa dóor nga dékk ko sa faar wii da koy damm te loolu mooy tubaab di wax prêter le flanc bu ko defee nag euh, mbokk yi kàddu yooyu lañ ci yem xëy na danañ ci waxaat euh, beneen jamono waaye daal euh, yaakaar naa ne dana mës leer incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.